ci ndaje gi ñu amaloon ci altine gi ñii di waa alliance du moyen secondaire bi boole syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire ak cadre unitaire syndical des enseignants du moyen et du secondaire ñu ngi nakarlu bu baax jafe-jafe yi nga xamante ni ñu ngi koy nemmeeku jamono gi ci njàng meeg njàngale bi. dafa am ay seetlu yoo xam ni dañ ko jot a def yoo xam ni luy gàllankoor njàng mi ak njàngale mi la natt indi ay jafe-jafe ci école bi loolu nag li ci jiitu mooy situation politique bi nga xam ni moom moo am ci réew mi dañuy wax nguuru senegal ni ko jàngalekat yooyu nekk ci biir kaso yi te seen jàpp amul dara lu ko sabab lu normal mu bàyyi leen sinon jafe-jafe bu am ci école bi bu boobaa ñu xam ni ñoom ñoo ko indi su loolu weesoo dafa am li ñuy wax passif des accords ñu ne gouvernement bi dañu signé woon benn protocole d'accord en 2018 ginnaaw gi ñu signé waat beneen protocole 26 février 2022 ñaari protocole yooyu yépp nag dafa am ay poñ yu am solo yoo xam ni poñ yooyu ba léegi dafa taggateer bi ngir wane seenub nakar fas yéene nañoo dakkal bépp cours maanaam journée école morte la ñu nar a amal ci daara yëpp. alxamis gi juróom-ñaari fan ci weerub novembre. décidé nañu itam talaata bii di ñëw nga xam ne day tolloog juróom fan ci weeru novembre bi ñu nekk dañuy décréter ci réew mi yëpp école morte ça veut amul fenn ci réew mi foo xam ne fii bëgg nañu njàng wala njàngale. mu nekkoon ab ndaje bu CUSEMS ak SAEMS amaloon ngir waxtaane li xew ci réew mi jamono gi ba tax na ñu ngi woo nguur gi ngir mu jël ay matukaay lu ko may rekk dina indi ay loraange ci njàng bi ak njàngale bi.